nan tey gërëm di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara di ko nan tey gërëm di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi Bamba ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaaram soxna baaleeg maam bu zambaañu le jaara am nga tawfeex ku gën fa bal tudde jaara turandoo jaara ajjanaay wàccuwaayam koo mën a doon santal ci mbaax fi jaaram bu sa baale manoon ci kër man ci jaamoom fu mu jaar nit ña yéemu roy jaara gëm na yàlla ak yónneen ba xam seyxi bamba xam na boppam bafar mu doon soxna jaara daana jëf daana waar jigéen ña ca kër ya daana jàngat liggéey ba doon soxna jaara xam-xamam wér na alquran xam na jaara am ca daan bind cër la woon am na sañ-sañ bu ci buur bi di yàlla am ko ñaan daal mu def ko ngir moo di jaara cheikhi abdullah waxam jaake yi mi nett leen ngir nu dolli waaru ci jaara noonu lislaam ba ñuy fexeel cheikhi bamba def ko ci kam ngir tuxal doomi malaayikateem ngir dañoo sopp bamba ne dañuy jiima dimbali bu sa warfa deew ba génne fa xaadim naa ko seyqil xadim wéyal man la jaara jaara di am ndam lu rëy ma del si ci réew mi dekkalaat sunna rey bi daa doomi jaara ku fi am Seexi Bamba am soxna jaara war a sax naan jaara ma yow soxna jaara noo ngi ñaan barke ak ngërëm ak i taw fii defal nu ko jaara may nu kàddal nu jëf ngir Seexi Bamba may nu wërsëg nu jogo kay doomi jaara noo yalwaan noo ngi sako noo may nu daal man nga koo ay soxna jaara fu fi tollu neel amiin ngir mu baawaan ngir nu am ngir nu jëf ba sant fi jaara jërëjëf rabbuna jaraw lak baali hakada cheikhina alqadim doomika subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala falu sëriñ Hasan bu di tawféexi soxna jaara seen do soxna jaara digal nga àddina wóor na yaa nu jox seyxi Bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaaram soxna baaleeg maam bu sambaañu le jaara am nga tawfeex ku gam fa bal tudde jaara turandoow jaara ajjanaay wàccuwaayam koo mën a doon santal ci mbaax fi jaara noon ci kër man ci jaamoom fu mu jaar nit ña yéemu roy jaara gëm na yàlla ak yónneen ba xam seyxi bamba xam na boppam ba far mu doon soxna jaara daana jëf daana waar jigéen ña ca kër daana jàngat la géey ba doon soxna jaara xam-xamam wér na alquran xam na jaara am ca daan bind cër la woon am na sañ-sañ bu ci buur bi di yàlla mu ko ñaan daal mu def ko ngir moo di jaara Cheikh Abdullah waxam jaake yii mi nett leen ngir nu dolli waaru ci jaara noonu lislaam ba ñuy fexeel Cheikh def ko ci kam ngir tuxal doomi jaara malaayikatiyam ngir dañoo sopp Bamba ne dañuy jiima dimbali